aj nekk ponk boo xamante ne bu ñu faratal la ci lislaam ci jullit boo xamante ni moom mët na ko ci wérgu yaramam waaye tamit ci am amam aj màkka farata la ci jullit bi benn yoon mu ngi war nag ku nekk jullit la war kon ku nekk jullit génne nga ci ku am la war ku ñàkk bokkut mu ngi am koo xamante ku mesure ku dem ba am ci aatu mesure mooy ko am 18 ans am xel kooku daal la aj waaka war dafa bokk si euh, euh, euh, juróomi ponku l'islam kon nag amul dès que nga nekk mukallaf amatul ndaw laa wala wala loolu boo nekkee mukallaf condition yi nga xam ne réunir na pour nga dem màkk mu réunir mais mën nga fas yéene nga dem màkk. waaye nag fii ci Sénégal lu ñu nemmeeku rek mooy ndaw yu bëri nangu ñoo dem aji donte sax julli leen wala am nañ ko li ko waral. màkk moom du âge julli defe naa du âge woor weeru koor du âge nattaasaka du âge ma ngi aju ci man-man wér gi maanaam bu fekkente ne yow ndaw nga te am alal ju toll noonu. xam nga nit ñi dañuy jaawale léeg-léeg sax nga gis ko am day am alal ni voilà xaaral ma yóbbu sama yaay màkka waaye wala yóbbu sama yaay sama papa màkk déedéet boo amee alal ji ba noppi yow yaay dem ba noppi soo demee ba noppi nag nga xam ne def nga ponk bi su ñëwaatee nag sa yaay sañ nga koo defal ponkam wala nga may ko mu dem wala sa baax waaye du question que da am xaalis bi sa poche ba pare jël ko jox sa yaay mu dem maka wala sa papa mom melni xale bu jigen bi mom am ñaar fukk at ak ñett dekk fele ci gibraltar mom japp na rek lo xamne waré fu bepp julli la amul ndaw amul mak sa boko mené te limuy sakku mom diko ñaan yalla moy dem aji makka ci atam yi mu am Euh, juste pour dem ziaré xam genre fuñ fuñu jent mohammed sallallahu alaihi wasallam ndax lolu am na ndariñ en plus euh nexna dal nexna wa waré la dafa bok ci cinq affaires yu yalla wax quoi. âge euh, ah l'ol de mom parce que du moment que am nga katan mën nga ko en plus wax nga ko aussi. mais bon su féké amo moyen bi aussi euh, ken ken forcé wu la quoi. waxtu aj nak nek na jamono jo xamanteni bu am solo la julit bu nek war ko def waye tamit muy jamono jo xamanteni fu ñu wétal ko borom la waye tamit fessel sa ngam gëna tamit raftal sa xol nek tamit jamono jo xamanteni jamono ñu jéggelu la